yéen mbokk taalibe amaan nañu mbégte saa su nekk di jano geen waxtu bi si seen émission ziar daara yi tey nag ñoom benn émission bi spéciale ndax xam ngeen ni euh, émission bañ ko dalee ba def ba tey mosuñoo am chance su siyaare ji daara Mafaatihul Bichri TV Mafaatihul Bichri wante tey ñu am euh, tawfeex fekk si waa daara Mafatihul Bichri euh, faree fii si Guédiawaye Nimzaat waaye du ñu guddal rek dañuy bàyyi ngeen daal teelu kuréel tuutànk incha allah buñ si noppee ñu jublu si waxtaan bi jërë ngeen jëf yéen mbokk taalibe ginnaaw ba ngeen teewloo kuréel tuutànk bu am solo boobee ak jàng bu sell beeg maasa bi ñoo ngi leen fàttali yéen a nga ak ñun di teewlu seen émission ziar daara yi tey ñu fekk si waa daara Mafatihul Bichri fare fii si Géejawaay euh, Nimzaat wante ñu ngi fekkoog ñi nga xam ñoo ŋànk liggéey bi ku mel ni Serigne Mourtala Serigne Mourtada Diouf ak tamit Serigne Abou Niang mi nga moom mooy tàggat euh, tuutànk si wàllu kuréel ah ñu ngi lay xamal ni daayira bi moom xëy na jiitu na mu nekk fi waaye ci jamono la dem ba li ñu wax réer yàlla dañu ommat ba ñu agsi fii ci naan fekk na booba ab yaxantukat lañu ñu woon man na ni commerçant lañu ñu woon moo ñu wàllu yaxantu moo ñu fi indi woon waaye bi ñu fi ñëwee itam yàlla bu la bëggee liggéeyloo da lay jaarloo ci ay jaar-jaar isa araada allahu amran hayya lahul asbab sunu borom bu nammee dara da koy jaarale ci ay sabab sabab ba nag mooy ñu ñëw fii ci barab bii di fi yaxantu ba sunu borom dogal liggéey bi nekkoon fi waaye sunu dogal borom dogaloon mu réer waaye ñun dañoo baaxoo lépp luñ dégg ñu tudd ci Cheikh Mouhamadul Mourtada fu ñu dem danañ ko fa xeeñcu te bu réeree dinañ ko jeex. ñuy sant waajur rek ndax li olof Ndiaye naan feccug liir bu neexee rek nday jaa jàpp ca wagg ya ndax tout tànk moom bari nañ jamono ji ñu ngi nekk ci nombre 31. répétition boo xoolee chaque répété benn nit ay manqué te su ma laajtee dañ may naan boom bu ñëwee bu ma ko laajee day naan sama yaay ma yónni woon fii te bu paree rek day daw si parfois nag ñàkkul ñu si taar répété mais ku ci taaree rek sa yaay moo lay fekk foofu ne la demal répété ji te ñoom sax dañoo dem ba répété bi daa bokk seen deret ay tout tànk lañ de waaye xasida yi jamono jii de mën naa ne daa saf si ñoom sàpp bañ na ko sax ba su ma demee joxe yeneen yitte sax bu ñu duñ ñibbi dañuy toog ba seen heure répété jot ñu dem ñibbi damaa dem ba ñoo ma gënal sax man lu ma mën a am si àdduna damay am fierté sax su ma nekkee ak ñoom. maa ngi nuyu ñëpp tey am mbégte ci teew gi ñu teew fii tey ndax tey day bis bu màgg te bisub tey bi nit ñi kontaan nañ ci ndax lu tax ñu kontaan ci mooy Mafaatihul Bichri TV ak Mafaatihul Bichri daayira bu ñu dajee tey jii ñëpp ciy bég li nga mën laaj nag ci wàllu daayira bi ak sëñ Mourtala maanaa sëñ Mourtala ñun jullit yi ne fii ci Waxinaan taalibe yi ne ci Waxinaan ameel nañ ko njukkal ndax lu tax ñu ameel ko njukkal Cheikh Mourtala dafay ñëw fekk daayira tumuranke woon fi ndaw ñi li ñu xamoon déglu musique football taxawaalu mu ñëw dajale tout tànk yooyu yëpp dugal leen ci njàngum xasaayit ba mën naa ne tout tànk yi tey jii football nekkatul ci seen xel foo nekkatul ci seen xel lu dul jàng xasaayit yi kon loolu tax ma ne ameel nañ ko njukkal